jamono jo xamne ni danaka li fekke ak li nga xamne ni day neenal waxtu dafa bari lol kon nak bu len yalla tawfexele ba ngeen am sax ben 5 minutes def ko ci xass day serigne touba yi diko répéter diko yëkëti njang mu am solo mo xamne ni ku ko dégg xamne njang mu wër la lol ak tiant la kon ñu ngi leen di gëna ñaax tambalé ko ci suñu bop euh ñu gëna gor gorlu gëna selal xass day gën ci dugg rek ba li nga xam ne nii moom la ci Serigne Touba bëgg ci sellal gi ñu nekk ci ba keroog ñuy am ngërëmam kon ci turu ñi nga xam ne ni ñoo yore euh, daaray kaamil ni ma ko waxee léegi tàmbalee ko ci Serigne Moustapha Diatara Serigne Ousseynou sëriñ Fallou mi nga xam ne nii moo yor coordination kuréel yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di fësal seen mbégte am na fu mu tàmbalee waaye amul fu yem waaye nag cant gi moom daanaka yéen itam da ko war a sant ndax ki nga xam ne ni day liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim daal di ne kaay ñu bokk ko kooku itam bu bu la sant itam war nga koo sant kon ñun ñëpp rek dañoo bokk tool boo xam ne nii mooy toolub sëriñ ku nekk am waar boo fa féete eh, waar yooyu yëpp nag bu dajee ku nekk bay la nga war a bay mm, ci mbay mu sell ci la tool bi di sete wecc ñu jébalaat ko sëriñ tuba kon yàlla nañ ci am ngërëmam kon insha allahu rabbi ginnaaw loolu itam ni ngeen koy amee ginnaaw tisbar jàpp tàkkusaan tey ji itam dinañ amal waxtaan wu am solo mu doon eh, ñeenteelu jataay bi ki nga xam ne ni nag moo ko war eh, Euh, Serigne euh, Mohamed Serigne Mor Sora moo ko war a waxtaane waaye ki koy modéré di Serigne Mohamed Jatara ñu war a waxtaanee nag thème bu am solo boo xam ne nii ku nekk mën na koo déglu muy melokaanu Murid Saadix méngale ko jàng njàngaleem Serigne Touba Xadim Rasul ak fii jamono ji toll kon tem la boo xam ne nii ku nekk ci ñun soxla na ko ndax jamono yi jàpp naa ne Murid Saadix moom yomb na ñu koy wax nit waaye ndax garaat gi yomb na loolu nag incha allah rabbi Serigne Mor sëriñ Mor Sourang ngeen jéggal ma dina ñëw euh, waxtaan ci waxtaan wu am solo xam naa ne di leen ci toftal ay laaj gën koo leeral incha allah rabbi di leen jaajëfal di leen ndokkeel ci ànd gi ngeen di ànd ak daaray Kamil waaye li ñu leen koy waxee chaque fois euh, liggéey bu am solo bi ñu ngi koy ànd ak mbooleem télévision yi nga xam ne ni dañoo nekk ci yoonu murit ak télévision yi nga xam ne itam dañoo sóobu ci wàccaayu màggal gi ak yenn site internet yi compte YouTube yi Facebook yi réseaux sociaux yëpp ñu ngi ànd ak ñun di yaatal liggéey bi ci biir réew mi bu bitim réew ba képp koo xam ne ni yaa ngi nekk di connecté instant bi yaa ngi xam li xew fii ci tubaa ngir ànd ak ñun dund ndigal li muy jàng xasida ak euh, ci biir jumaay ji ak li ko wër ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha kon ñu ngi leen di ñaanal mucc ak tawféex ngërëmal Serigne tubaa ba ci kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh